nee na boo àggee ci bisub xiit nag gannaaw boo jullee suba noppi nga jéggalu yàlla téeméer yoon afirullah téeméer yoon téere bañ bind say bàkkaar danañu far lépp dara du deset deseti ci say bàkkaar te bu ëllëgee da nga mucc ci mbugalum yàlla laa yabqa fii diiwaani shay'un min ad-dunuub illaa muxya anhu wa yakun yawm al amina min xadaabillah noonu la ko waxee nee su xiit boo waxee subhaanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon bu téeméer bu matee nga wax yaa rabbi inni aataytu sawaabaha ahlal xubur loolu li mu tekk mooy suñu boroom tiyaabay lii ma jàng nang ma ko defalal ñu nekk ca bàmmeel ya ñu faatu daal nanga leen defal tiyaaba ji ne bu ëllëgee yamal xiyaam ba ñëpp dekk ñëpp dañuy maase na wax ne suñu boroom sa jaam bii na ko yërëm la mu ñu defaloon nanga ko